décision bi nga xam ne conseil constitutionnel jël na ko vraiment loolu ñu ngi koy euh, euh, ñu ngi koy rafetlu euh, li ci des mooy ñaareel ba ñu ngi woo ensemble acteur politiques yi ñëpp ñi nga xam ne maanaam ñu ngi jongante candidats yi ak rawatina président la république ñu fexe vraiment ba am position boo xam ne daal position bu mat la ñu yëkkatiku vraiment fàtte seen bopp ñu jiital intéret réew mi ñetteel ba ñu jàpp ne élection bi kat. Euh, dañ ko war a def maanaam ci délai yi nga xam ne nii daanaka moom la constitution bu wax parce que constitution dafa wax ne mandat président de la république dafa war a jeex la 2 avril donc ci délai boobu war nañoo fexe ba tëgg élection bi bala ñuy àgg ci le 2 donc ci la ñu proposé ne élection yi gannaaw ñun bi ñu ko seetee ba noppi war nañ koo mën a def dimanche trois mars wala dimanche 10 mars jaar ñetti ñaari dates yooyu la ñuy jàpp. pour proposer ñu def élection bi ci euh, ñaari date yooyu parce que li tax ñu wax ko bu ñu ko defee ci date yooyu dana tax la nga xam ne maanaam app bi ñu may président de la république pour mu bañ a jéggi mandaam muy le 2 avril dina tax maanaam app boobu donc ñu bañ ci àgg te loolu vraiment donc lépp li nga xam ne li ànd ak moom maanaam li ñuy wax delle de mise en œuvre li ñu convocation collège électoral beeg ak jour scrutin beeg ak la cay topp yépp loolu yëpp ñu def ko ci anam yoo xam ne nii anam yu jaar yoon la anam yu gën a rafet